ba mu kennal ko. liggéeyal yonent bi. liggéeyal yonent bi. ba mu settee ko. ba mu settee ko. tey. laaj rajo Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké la journal dafa am

ba mu wéetal ko liggéeyal yonent bi ba mu settee ko li may wax laa soxla soxla ma sécurité ndax maa ngi xabisani asamani najjaani allamani man bil huda najjaani Bamba kennal yàlla. ba mu settee ko. ba mu settee ko. Bamba wéetal yàlla. ba mu kennal وفي شيامي وخيامي والمنام bismillahi wa ala millati rasuli wa manhajil xadim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ngeen baal ma am yoo xam ne mënut bu nu sukkandikoo ci ki tax ki ko waral muy le sauveur de l'humanité mooy le serviteur du sceau des prophètes ki nuy soowee tey ak ëllëg kàddu yi may jàllale ci jamono yii dafa mel ni day woroo tuuti ak kàddu yi daan jàll ndax dafa am ñu nekk ci sama wet ñoo xamante ni bii lu may wax seeni wax lu may def seen jëfa ndax dañuy nuru ñaar ak ñett tey kenn bokk Mbàkke gi bokk almuridiya ba noppi xol yi dëppoo ci leeru ku tedd Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kii sama wet moom di Serigne Abdoul Khoudous dégg naa defe naa kenn du ko présenté kenn kii di Seydina Ousmane tam bu bàyyi Cheikh Xaadim noonu ñoo yóbbaale ñi ci des ñëpp dama bëgg leeral baatu révolution bi may wax révolution bu ca pacifique tegee rek kon amatul dangal ndax mooy la non violence waaye ndem dafa jot te lu cliché in agent lu waxtoom ñëw ñu jotal ko leeral ko fi mu révolution bi du ci domaine politique déedéet ci domaine yépp la domaine religieux d'abord culturel économique politique pouvoir ñun fu nu tuddee pouvoir rek pouvoir yi taxul ñuy wax pouvoir ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom la ñuy wax ndax mooy pouvoir yu yonent bi mooy pouvoir yu yonent yépp ma waxal tubaab yi ca Gabon ni leen mulku ilahiya rabban li zaati wala sa yan hu dararun li zaati loolay pouvoir li takk ndeer waaye mënunoo ñàkk leeral kuréel bi di Touba ca kanam waaw man maa fas yéene ak ku may tuddoo ku nekk weer wi dee ñaari téeméer dafa tuuti ku am lu ko ëpp na nga ko sasoo man di ma sasoo mooy samay at juróom-benn fukk ak juróom-benn ah bu at mi jeexee su ma ko fekkee ma yokk junni bu jeexee su ma ko fekkee waate ma yokkaat junni et cetera et cetera. dinaa seet nag sama turandoo yi ku ci ëpp jom ma boogan la ko waaw ndax damaa bari turandoo ma koy sante ku tedd am na ku nekk fële ab atom bu bees def na fi ñaari weer tëgg ko ba ko bët sax naam tur yi ngeen xam ko ma nga ca naar yi waaw oto bi am na fi ñaari weer tëgg gu ma ko bët nag waaw ndax dunduma oto dunduma vélo waaye bokk na ci turandoo yi am jom jom ci na ko ñëpp jéem a am waaye di fay weer ba noppi di joxe ñaari téeméer ci Touba ca kanam moom kooku moom gënul gënul bu salaire ba matee fukki junni joxel junni matee ñaar fukki junni nga joxe ñaari junni les milliardaires nag xam ne nee nañu ay milliardaire la ñooy waaw ci diggante Europe ak États-Unis ak Asie ba Moyen-Orient ah fu fu waay denc xaalis bu fekkee mat na fukki milliard indil ñett yóbbu Tuuba ndax itam nag ñu fàttaliku kunuuzuhum tukwaa bihaa jibaahuhum kasaa zuhuruhum kaza junubuhum wa kaza zuhuruhum te xam ne ñoom Sénégal yi duñ bëgg a bokk ca ñooña alal yoo xam ne yow man xiyaam dañu koy jël soppe mu nekk ay barre de fer ñu koy def ci sawara di la ko ñaas ci kanam ci gannaaw ak fu nekk jaru te ku fi denc nag ay milliards yoo xam ne moomoo ko nag boole ci nga xam ne yëfi réew mi la jar koo jëli indiwaat ndànk kenn du la jàpp dañuy mas ak yow suturaal la seet li nga ci mën a dundee ak sa njaboot ñu jox la ko li ci des des ci askan bi li gët mooy dëgg tey li ma ci xam bari na nag waaw li ñuy tuddee diig nag moom du ko jar ndax man jàpp naa sama bopp bu yàgg dinaa wax sëñ bi Cheikh Sidil Mountakha dinaa ko wax ni ko pour mu wax ma kii bu ñu demoon ba may jàpp itam nañu ma def résidence surveillée Porokhane ndax bu ñu ma yóbboo ci kaso yi moom dëkk bi day yëngu. dëgg la. ndax maa nekk fépp ci kaso yi. foo dem laa ilaha illallah jàng bu ñu demee ba jàpp moom mënut ko ñàkk nañ ma def résidence surveillée jàmm ni ñooy lu mooy rek baj baj day bëri. non non dinaa ko wax sëñ bi nee naa ko neel Macky bu fekkee dara desu ci lu dul jàpp nañu yóbbu Porokhane def na risu daw surveillé Macky soo ma kii day farcé rek mais farcé wu ma de <laughs> waxoon naa fi Ablaye Wade fexe leen ba ma jàpp fexe leen ni ma jàppe te ma rey nit du ma agressé kenn du ma kii fexe ngeen ma jàppee vraiment te état sax moom dañoo bu leen neexee sax ñu jàpp lu ma bitim réew bu leen neexee waaye na jàpp gi am rek mais du ko nen bu kenn dama rey nit laa dama wut dorog bu kenn wax loolu nee nañ ne rek daa bëgg ku ko jàpp lii nag dama ne woon dama koy sànni fii ndax li ma war a wax ci MDG intellectuel yi ñëwaguñu waaw boobu projet modèle du développement global moom nga xam ne bokk na ci li ñuy envisager ay tàndarma yoo xamante ni bii Ila Touba gépp lay topp Ila Touba gépp lay topp xam ne boo jógee Touba ba ba ngay jeexal Ila Touba gi lépp doon ay tàndarma ci wet bu nekk loolu bokk na ci projet bi yi ñuy envisager boobu moo ci jiitu léegi nag dama bëggoon professeurs yi di ñemee spiritualité bi sama côté ñoom ñoo yore temporel bi mais nañu ko ñemee rek parce que mooy dëgg mooy base bi jarul mooy ci fii nag dama fay yor samay rakk yoo xam ne ak samay doom yoo xam ni wax dëgg yàlla la seen maam waxoon ni ni maam kër ñu ne ko am mu ni ni sell ni sëkk xam dara yëngalu la ñoom laa fi yor moo tax ñu daree ma nii waaw bu ko defee Moustapha na nga wat sa sikkim bi dégg